s'est passé nii. loo xam ne gis naa ko en tout cas man euh, méngewul ak sama gis-gis surtout moom laa doon xalaat moo doon xalaat ni que bu ñu ñëwee tey nii lay demee euh, parce que loo xam ne gis naa ko d'abord si question yi euh, question yi dañ leen ko jëbbaloon bu yàgg alors que donc amoon nañ temps pour préparer seeni réponses mais bu ñu ñëwee ba fii dafa mel ni que ñoom seen bopp xamuñoo lu ñu wax parce que même si biir réponse yi loo xam ne ñu ko doon xaar ci réponse gisuñu ko. te loolu aussi loo xam ne ñu ko doon xaar si sérieux ak si annonce yu baax gisuñu ko donc moi je suis resté sur ma faim di am yaakaar ne que ñu bëree dañ fi ñëwoon pour tàccu ñeneen ñi pour déglu euh, alors loolu warul nekk loolu assemblée nationale assemblée nationale dafa war nekk euh, milieu boo xam ne milieu bu sérieux la ay débat yu sérieux par exemple bu ngeen seetloo ay assemblée nationale yu mel ni France opposition dina wax cinquante cinquante la bu gouvernement bi posé Euh, majorité bu posé trente vingt questions opposition bi ne posé vingt questions mais ren bi yoon dañu jëbal opposition bi député PDS nga xam ne dix la ñu fukk la ñu jox jox leen trois questions ñu ñoo xam ne ñoo nekk non inscrit ñu mat vingt et un vingt et un député ñu jëbal ñu benn question boo xam ne euh, El Hadj Ousseynou Diouf moo ko posé Ousseynou euh, El Hadj Diouf moo ko posé dama am yaakaar ni que loolu parce que bu ñu wax faral di wax dialogue ci assemblée il faut que dialogue boobu mu nekk entre di majorité bi ak opposition bi mais waruñu permettre opposition bi euh, majorité bi di poser ay questions ñu tontu lu mu leen neexee nit ñi di si biir assemblée nationale bi alors que amul benn njëriñ askan bi. ci wàllu track bi nee nañ dafa mel ni yow yaa yaa yaa ki ah, euh, am na. mais dafa mel ni suivre actualité bi tegu naa si bu yàgg yàgg man sama procédure mi ngi wéy mi ngi continuer di wéy du man rek. c'est-à-dire que non c'est-à-dire que ñoom wax. ñii ay waxu euh, daanu si karanta waxu picc lañ doon wax fi parce que sama dossier ñëpp xam nañ ñi que depuis longtemps mi ngi wéy di continuer hmm. donc euh, dañ dañ ma tere wax si procédure bi fu mu nekk mais ñëpp xam nañ ni que defoon nañ ma mise en demeure te du ma nekk dossier bi ay nit ñu bëree bare la ñu woon Euh, ba léegi si ñaari nit lañ ñemagul El Hadj Diouf dafa ne ñu continuer liggéey bi boo xam ne foofu lañ ko tàmbale woon mais ñu bañ ko yemale aussi seulement si dignitaire Abdoulaye régime Abdoulaye Wade bi dañ dem ba depuis Abdou Diouf dem ba depuis Senghor loolu la El Hadj Diouf wax loolu mooy question bi je pense que si question boobu la ñu waroon répondre